ci sénégalais yi di metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. ngay toog sa ordinateur di tapé di kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran ngir ragal gouvernement bi. fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tapé di kaj kaj yi kaj kaj suba ngoon di saaga di xoloo. ayez le courage de la vérité au Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran yi. ngir ragal gouvernement yu sans ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte di ànd ak yéen comme ni ñu ko defee jam bu nekk seen émission euh, tribune euh, d'actualité di waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm euh, ci actualité ci tolluwaayu réew mi ngeen xam ni depuis bi président Macky Sall waxee ne du dem ci présidentielle yu 2024 ba tey ci penc mi gis ngeen ni commentaires yi ña ngay wëy ñëpp a ngay waxtaan ci ne bu dee ni du dem kan mooy doon kon finalement Euh, candidat wu wala ay candidat ñi nga xam ñooy coalition euh, benn Bokk Yaakaar démb euh, jot nañ ci ay information ba tey sax convoqué waat na seen biire ne am na ci ñoo xamante ni ay kilifa lañ bokk xëy na ci partem ñi mu woolu ngir waxtaane ko ndax ci biir ñooñu dafa yaatu ba ci coalition benn bokk yaakaar am déet am na ñuy wax sax ni am na ci biir kilifa yu nekk ci benn bokk yaakaar yu fas yéene ñoom it ber seen daara Euh, euh, waajal seen bopp jëm ci présidence loolu it day indiwaat ci penc mi mi euh, compagnonnage yu ñenn ñi nekk ci boobee coalition ak président Macky Sall ki ñuy dalal kenn la ci ñoom yàgg nañu nag ci jamonoy PDS mujj retrouvé wu également bi président Macky Sall jëlee nguur gi ànd ak moom accompagner ko ba jamono ji mooy PCA bu euh, euh, SENTER di euh, l'ancien ministre Thierno Lo tey moom la ñu fas yéene àndal ngir waxtaane ndax am na yu ñu for te loolu incha allah dina ci ñëw waaye di wax ni ni ngeen ñuy teeloo ci sans limite gulet également ngeen koy am Euh, ci canal 31 euh, bu TNT euh, jaarale ko ci Yëgle TV bi nga xamante ni moom ci boppam moo ko jiite jamono ji dina ñëw également gën ko yaatal parce que suñu waxee ci biir benn bokk yaakaar daan ñëw également ci discours bi ñu ko jàngatee ndaxte boobu ba léegi dégguñu ko moom Thierno Lo lan moo ko waral ndax da doon xaar pënd ba wuri comme ni ñu ko waxee mu àddu ca ba tey ñu ngi wax. Euh, ni waxtaan war naa mën a dox ci diggeem ak le principal opposant suñ ko mënee waxee noonu di Ousmane Sonko bi nga xam ba tey équation mu ngi tegu ñu ngi koy xalaat loolu yëpp incha allah nañ ci ñëw ndax xam nañ ay position euh, démb barki démb ndax tey dafay varier euh, ci wàll wi buñ ko waxee mooy ndax xalaat na ni waxtaan mën na am ci diggante ñaar ñoo ñu am déet loolu yëpp incha allah nañ ci ànd ak moom maa ngi lay nuyu bu baax monsieur le ministre Thierno Lo am mbégte di jàkkaarloog yow ci sans Ousmane maa lay euh, remercier ci invitation bi nga ma invité et je trouve que c'est pas la première fois. que man ak yow ñu tase di def ay débat. Hmm. et que c'est pas le contexte moom ma positionné nii par ma ñëw ci plateau bi parce que man maa ngi ci plateau yi toujours. bien sûr di échanger ak sénégalais yi di assumer sumay position et mes hmm. responsabilités par rapport au pays. Hmm. tey li nga def. maa ngi la ciy sant bu baax di ci gërëm seen internautes yi. pour que ma ñu mën a am un débat fécond. Hmm. pour waxtaanee sérieusement les questions du Sénégal comme ni ñu amoon habitude di ko def. Hmm. Ah, je suis open. oui question ba ma posé bu soobee yàlla ak yonent bi dinaa la ci tontu. te ñaan yàlla suñu borom. mu jubal kàddu yi ci nit ñuy dégloo ma ak xel. bañ ma dégloo ak xol. c'est important dinañ ci ñëw parce que tey aussi dina doon occasion ñu am ay pàcc yu ñu leeral xamit également ginnaaw. acte bi président Macky Sall teg Thierno fan la jëm li ma for ci weewu boy mooy nii danga bokk ci ñu fas yéene dakkal seen compagnonnage diggéem ak le président Macky Sall ñu ne dañuy génn ci coalition bi ber euh, sa mbiru bopp xëy na boo demul ci présidentielle ba am na ñoo ci fas yéene àndal ndax loolu lu wér la. bon xaw ma nag euh, fan ngay jëlee sa ay source parce que euh, journaliste nga mais li ma xam. Hmm. ca Gëmpo. te muy li nekk. Hmm. mooy président Macky Sall bi ñu ko dénkee réewu Sénégal dama bokk ci ñi nga xam ne bile moom moo leen doyloo wóolu leen yónnee ci ñoom ne leen dama bëgg ñu toog pour ñu daje soxnaam la yónni woon ci man di soxna ma Faye Sall ma déplacé wu dem toog ak moom ñoom au moins trois heures ou bien quatre heures de discussion parce que keroog bi may jógee palais. Hmm. ay deux heures du matin laa fa jógee te maa ngi fa demoon vingt deux heures ñu waxtaanee problème mu réew mi. lii at la. ma ni. lii at la li ngay nettali. dama ne bi may bi muy toog moom. ah di ma woo ay deux mille quatorze. quatorze pour que ñu àndandoo. booba ma ne la toog nañu de vingt deux heures jusqu'à deux heures du matin di discuter ci affaire Sénégal ak naka lañ war a mën a àndee. Hmm. ca ca ndaje boobu bañ ko doon def. amul woon ay problème de poste la preuve de 2014 ba 2021 amul benn ndomba tànk bu ma jëlee ci moom mbaa mu jox ko sama partie mbaam ma laaj ko ko parce que Sénégal moo ma intéressé woon ma di ko accompagner parce que j'avais trouvé que c'était le meilleur choix et son programme recoupait ambition yi maam pour le Sénégal ma ak moom léegi hmm. ba léegi ànd boobu ci laa àndee ak moom parce que ba léegi le président Macky Sall est le président du Sénégal. Oui. jusqu'au mois d'avril 2024 li xew. Hmm. te waa benn bokk yaakaar ak ñi mu àndal di comportement yoo xam ni dafa nuru ay comportement yoo xam ni. Hmm. dafa defoon dafa demoon élection présidentielle perte ko man awuma gis-gis boobu. ah il est toujours le président de la République du Sénégal jusqu'en février avril. oui 2024. buy joxee lenge buy joxe yi. Hmm. et que décret bi mu amoon di ko signé ak responsable yi ñu amoon pour sécuriser le Sénégal sécuriser les personne et leurs biens di légiférer par rapport ak prérogatives yi ñu ko jox. Hmm. moom la am ba léegi te moom lay doxal ba léegi li xew. li xew c'est une réaction politique boo nga xam ne bile moom la engage moom la président Macky Sall. moom la engage parce que moom. moo toog wax ne maa waxoon sama maa génne woon sama kàddu maa bind maa assumé woon devant les Sénégalais loolee ma defoon waxoon ko ci ñëpp doon ma pousse pour que ma teel a wax hmm. wax naa tey mooy la ma nekkoon jógewuma ci mais loolu mais c'est pas le monde qui s'effondre c'est pas des des des éclaircies lu nit wax la hmm. redorer plus ou moins le blason des politiciens parce que yaakaaroon nañ ne politicien moom amatul lu muy wax luy nekk dëgg lu mu wax wax waxet lay doon te ma doon ko xeex na leen. tey tey jii lii jox ma dëgg. bàyyi leen di wax politique politique bunul problème bi problème mu nit la nit ki mooy seet kàddoom ak jëfinam. naka la ko war a defee ba kenn du ko indil waar. oui Thierno wax nga ko waaw nga ni. donc moom moo waxoon. ñëw na jël ci kàddoom ne par rapport ak li ma waxoon ak Sénégal. waruma caa jóg dama caa war a toog comme il le dit nee na c'est un homme d'honneur. un homme d'honneur dafa am kàddu te bu koy xëy kàddoom dafa koy kew. code d'honneur dimension la mais. na ku nekk teg ah. na ku nekk teg ci contexte bi. la nga doon wax démb. la nga doon wax démb. man Thierno Lo la ma doon wax ca temps ab Ablaye Wade ak la ma wax ci temps yi président Macky Sall waxugul lii. nañ ma ko tegal mosuma changé. lu ñu xam la. mosuma changé. yow xam nga ko. lu ñu xam la. dama wax ne. oui. conseil constitutionnel mooy valider ay candidature mais na fekk nga déposer ba sa candidature président Macky Sall il est libre de déposer de ne pas déposer je n'ai jamais validé ou bien invalidé sa candidature. Mm. je ku bëgg a nekk président de la République du di nga jël sa dossier dem teg ko ca conseil constitutionnel conseil constitutionnel bu ko validé nga dem bu ko validé wul doo dem ca benn bu ko validé boo demee ci élection boo dellusiwaatee di nga taxawaat ci kanam conseil constitutionnel. Ah. prêter serment soo ko deful doo nekk président de la république du Sénégal. vous pouvez baser wax lu leen neex. Hmm. xeex ci rey ci ay nit. fa ngeen di mujjee mooy dem ca conseil constitutionnel comme ni ngeen ko defoon en 2012. oui d' accord mais ba tey. n' est pas féliciter le président Macky Sall d'avoir respecté sa parole et d'avoir désamorcé une bombe qui la là. une bombe une bombe qui était parce que. maanaam bu demoon une partie il y une partie de nos compatriotes qui disaient que bu demee. de benn jaral nañu ñu joxe Yewwi Askan Wi ak opposition. Hmm. F24 ne bu hmm. demee. Hmm. jaral nañu ñu joxe suñu bakkan. ce qui allait se passer mooy mënuñu woon même bu ñu joxee seen bakkan. mënuñoo fexe fexe fexe ba election présidentielle du am. dina ñëw ci pàcc boobu. parce que loolu am na ñu jàpp ni ba tey menace boobu teg teggeekuwul. Hmm. xëy na teg fa ku nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mi jàpp ne xëy na doxalin bi mooy ñu xañ ko ko euh, ci ci li ñu jëm mais ça pompa répond à la question sànq wax naa la wax nga sa diggéem ak président Macky Sall wax nga ba fi ak février wala avril gën kaa gën kaa sori ba tey moom mooy président de la république na dafay tekki ni après àpp boobu Thierno day seeti ñeneen voilà. waaw question bi nga posé mën naa la tontu ci loolu. waaw. parce que dama la brossel pour wax la fan laa jóge ak compagnonnage mm. xam nga Ousmane man du ma militant wu APR parce que yi dañuy def ay confusion ba léegi fii ñu ngi def ay confusion te mm. confusion yu bari yu ñu def ci li tax président Macky Sall def jël décision mu jël ci loolu ci la bokk ah. benn bokk yaakaar du parti politique coalition la boo xam ne bii ñi nga xam ne dañoo am seen ay parti yor seen ay mouvement tekki dara ci réew mi am jaar-jaar ñoo décidé ne ñun suñu jaar-jaar rek suñu li ñu amoon. Hmm. teg nañ ko fii ñëw ànd ak kii parce que li muy def conforme na ak ñun li ñu gëm. ak fañ hmm. bëgg yóbbu réew mi kon nan ñëw ñu jàppale ko ànd ak moom. Hmm. donc man Soxna Lo dama ñëwoon di jàppale président Macky te ma bëgg wax fii dara. te mi ngi may déglu ci dana ma déglu oubien bu ma déglu dañ ko ko nettali. mooy bi ma toogee moom. en 2014 jàppale ko ba ñu dem ci élection 2019 dama toog ak moom ma ni ko. Hmm. président yow waroo am luy tiit ndaxte ñii jàkkaarloo ak yow man Thierno Lo su ma la jëlee teg la fee taxawaleen ñoom ñëpp amul kenn ci ñoom koo xam ne kii am nga ci parcours bi ma am amuñu kenn ci ñoom koo xam ne kii am nga expérience bi ma am. amuñu kenn ci ñoom koo xam ne kii carnet d'adresse bi ma am am nga ko maa la jëkk liggéey ëpp la jëkk laa génn réew mi ëpp la lu ma occupé ci ay post ci biir réew mi kon suñu demee ñu mel ni man dem ba ni yow la ñuy jàppale hmm. war ngaa xam ne ñii da nga leen di daan boobu dama ko manifester ma dooleel ko ca ne ko li ma la may tey yaakaaruma ne am na keneen ku yàlla bind ci Sénégal ci fii ma toll ci jamono ji ma di ko may li ma la may dama lay jàppale oui mais fan ak ci bëgg réew mi. Hmm. donc man compagnonnage laa def ak le président Macky Sall. en moom moom en tout loyauté. ci lu ci lu ma neex am ci lu ma naqari mais compagnonnage mënta neex à cent pour cent. lii la lay neex li naqari la mais le principe de l' alliance daf loo ratee nga dem ci ba jeex bato bi du tànge mukk. Hmm. ba mu nga génn président Abdoulaye Wade nekkoon na fi ma xamoon ne. Hmm. kii du dem. mais sama ngor moo doon ànd ak moom ba mu jeexal président Macky Sall ngor googu laa ànd ak moom ba mu jeexal nee na tey dootu dem. Hmm. maa moom suma bopp jël naa sama liberté dinaa dem ci moom. waxtaan ak sama secrétariat exécutif bu parti dem wax ak moom su ma dellusee Sénégalais yi dañ ma dégg comme na ma jëloon engagement taxawal parti ak na ma demee woon ne damay ànd ak moom Sénégalais yi dañ ma dégg. ci sama position sur l'avenir de ce pays. ñi jàpp ni jiitu nga rek jiitu nga waxtaan boobu xam nañu la nga nas jamono jii mooy ber ak ña mu àndal. ah. ber ak ña nga àndal. man sama yor naa sama. parti jàpp nga ni dematul. amatul mais damay dem defi évaluation ak ki ma àndaloon. ajana mooy coalition ajana waaw coalition ajana waay sama alliance pour la paix et le développement. du tudd coalition bi di coalition ajana ma am un siège am une école du parti yow xam nga ko. waaw ñoom Pape Djibril Fall yi ngi gis yëpp ay ñoo ñëpp ñëw nañ fa def nañ fa ay cours. c'était open à toute l'opposition sénégalaise. les hmm. vidéos son la dans YouTube. Hmm. samay activité politique ñëpp gis nañ ko ni ma doon def di def l'autonomisation des femmes. Hmm. jëlal samay étudiants seen ay appartement am samay groupement féminin constitué à Touba tam maa ngi président Macky Sall je lui ai bi muy dem à Touba douze mille inscrits laa ko jox am fii ci biir Sénégal fu nekk ma meetingal ko defal ko lu ne jàppale ko donc du ma parti cabine téléphonique dama am représentation am parcours nekkoon un un j'ai été ministre conseil du président Abdoulaye Wade en 2003 de 2003 à 2005 de 2005 à ministre de l'environnement du Sénégal. de 2007 à 2008 j'étais le ma gagné département Kébémer donc mandat électif j'ai été président de la commission de sécurité de l'Assemblée nationale ma jóge fa 2008 2009 ma nekk président de la commission urbanisme et habitat de 2009 ma dellu siwaat nekk ministre du tourisme de l'artisanat des relations avec le secteur furieux et le secteur informel sous le magistère du président Abdoulaye Wade pendant trois ans d'accord avant ça. oui c'est vingt de secteur privé.